naturellement parce qu'ils ont dit que c'est des c'est des ah. c'est des armes blanches. donc boo xoolee dañu ñëw carrément ils ont ils ont fait ce qu'ils ont pu ce qu'ils ont voulu faire donc euh, boo xoolee fii ñu doog a doy daanaka lii moo ci des télé bi donc ils ont frappé ici des coups aussi gis nga na. les yep, ils ont vraiment fait, fait, fait, fait de la barbarie. On a été coupé à la chaise ici. Mais ils ont, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu. Bon, voilà. Donc, euh, yep, table de litoyens, ordre payé, c'est des mélanges. Je pense aussi qu'il y a. Le bureau de